muy jotaayu majalis bi ngeen di amee fii di la maison du ngeen di ko toppee fépp ci adduna bi yal na yàlla dundal ñu ci alquranul karim yàlla boole ñu ci ñooñ alquran tey nag ñu bëgg a dugg ci tomb goo xam ne ñun ñëpp ñoo ko war a bàyyi xel ñun ñëpp ñoo ci war a dellu siwaat mooy mag ñi asalafu saalih suñu déggoon kuy jàng alquranul karim lan lay def ci ñoom tey ji ñun bari na ci ñun mën naa am wasaa'il yu bari yi tax na ba ñenn ci ñun mujjee nañoo miin dégg alquran nga xam ne dañu koy dégg mu mel ni loo xam ne daal miin nañu ko amul benn jeexintal wala benn jeexital boo xam daf koy def ci ñun te mag ñi am ci ñoo xamante ne wax ko dan nañu jam jàpp benn aaya alquranul karim di ko baamu guddib lëmb ba bët sët am ci ñoo xamante ne suñu déggan alquranul karim dañuy jooy te mu am ay namazij maanaam moo exemple yu bari insha allahu taala daan ci yaatal bu baax am ci ñoo xamantene ba yegg nañu ne suñu diggé alquranul karim daal di daanu xam subhanallah suiqu rushia alayhim dégg baatu alquranul karim daal di daanu xam ndax ñun tay ji alquran tollu nañu fofu wa min ajabil ujab bokku na ci li gëna yéme mbokk yi am ci ñoom ñoo xamantene dañu digg alquranul karim daanu dee am ci ñoo xamne ne dañoo jàng benn ay alquranul karim daa di faatu wuyu ji borom bi subhanahu wa taala kon tay ji alquran jaadu na ci ñun ñu wuutaat ban déggéen ñooñu nan lañ ko daan déggee dañ ko daan digloo ci wàllu tadabbur càmbar alquranul karim xam ne waxi borom bi subhanahu wa taala la yal na yàlla buur bi subhanahu wa taala gërëm leen te yàlla may nu ñun ñu dund alquran comme ñoom nañu ko daan dundee moo tax benn bés ki nga xamante ne moom moo di arrabi arrabiu ibnu xaytham dafa am benn mu dégg ki nga xam ne mooy abdullah ibnu mas'ud radiallahu taala anhu عبد الله مسعود دي جنغ وخبور بسبحانه وتعالى كسورة الفرقان إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا من نيغا خامني نيوم نيوم لا يالا دي دوغال سوارا يالا نتي يالا بور سبحانه وتعالى مسل يالا بن نيو تي بوله نيوم سونو سيني سوارا سونو ديمي با جوب سوارا نيو دادي ديغ نغا خامني نوني لا سفر دي يينغو ملني لوي ديريكو melni lo xamne da fay mam ngir mere gi nga xamantene mom la mere yéefar yi waye yakamti bi nga xamne mom la yakamti ñoñu dugg fa mu meuna seyal seen yax man leen lak ci sasi wa zafira ñu digg safara na muy noyyee mel luy xaren neene ba mu yeggé fofu rek fek rabi' ibn al-khaytham mu koy digg rabi' daal di yuuxu rek fa suiq mu daal di xëm ci sasi ngir ay al-quran bi mu digg ki nga xamantene ne moom abdullah masud diko jàng loolu mu ngi nekkoon balaa tisbaar waye ba guddi mom xemmali wut ximmi wut rabi ibn al khaytham ngir deg bi mu dégg bii al qur'an al karim ñun say su nek ñu deg aya bi deg kenn ku mën jàng mu koy jàng wala am ku ñu jité julli wala ñuy déglu mahmoud khalil husari rahimahullah wala ñuy déglu kenen mu jàng laaya bi waye ñun duñu def dara xolal sahabi bu màgg bii dégg bii lee laaya rek mu dadi yuxu dadi xam avant tisbaar ba deg guddi ximmalikuwut ngir benn laay alquranul karim mbokk yi ni ki noonu ki nga xam ne mooy abdul malik ibnu abi abi bakr ibnu abdurahman ibnu alxaaris ibnu alhisham moom benn bés nee ne dégg dafa mos a dégg abdullahi ibnu handala moom daf ko mos a dégg benn bés fekk abdullahi ibnu handala moom dafa feebar mu tëdd ci kaw lalam abdullahi ibnu handala mu daal di dégg benn waaye buy jàng alquranul karim waa ji daal di ne lahum min jahannama mihaad ومن فوقهم غواش نيغا خامني نيوم نيو دوغ سوارا من لهم من جهنم ابننوا تسوار جهنم مهاد مانام اي ليتا يو خامتني ييب سوارا لا مانام تك سفرا تي بوبام لا نوي تدي واي ومن فوقهم غواش لالين فيتكو مي الظلال مانام لالين فيتكو لالين ولونا كيرال لالين فيتكو سفرا لا لالين فيتي سوف سفرا لا كيغا خامني مو عبد الله بن حنظله bamu diggé waji di jàng alquran di jàng alquran ba yegg fi moy ci suratul a'raf fa baka xatta zanantu anna nafsuhu satakhruj taxruj mu daal yuxu joy joy ba man ma fokk ne bakkanam day manam day ñak bakkanam ci sasi thumma qaal ci sasi ñu dégg abdullah ibn hanzala muy wax nan saru bayna atbaq an-nar legi ñom ñu nga ci li nga xamne moy immeuble safara ya ñom ñu nga ci appartement sawara ya safara mo leen fete kaw safara mo mo leen fete suuf subhanallah léegi léeg-léeg nga dégg nit koo xam ne dafa lakk ci safara yi àdduna bii tuuti loxoom daal di yàqu wala tànkam yàqu wala xarkanamam wala lépp léeg-léeg ñu tuur nit ndox mu tàng boo xam ne ndoxu àdduna bii la nga xam ne sedd na ci sawara yaramam yëpp daal di yàqu waaye safara yi jahannama saaru bayna atbaaqin fi naar ñoom safara féeti leen kaw safara féeti leen suuf loolee nan la ñu koy dundee nee na ba mu yeggee foofu rek thumma qaama ala rijlayhi dafa feebaroon ba mënul taxaw mu daal di jóg daal di taxaw ci saasi qaala qaa'ilun ya aba abdirrahmani qud ña ña fa nekkoon ne ko toogal toogal yow Abu Abdurrahman mu ne maanaam manaa minni dikru jahannam alquud tudd bi ñu tudd jahannam tax na mënatumaa toog mënatumaa toog wala adri laalli ahaduhum nan laay tooge te wóoru ma ndax mën naa am ci ñoom laa bokk laa hawla wala quwwata illa billah lahum min jahannama mihaad wa min fawqihim gawaash ñoom la ñuy tëddee seen laytaay yi safara la la leen di tiim sawara la kon tey jii ñun bés bu nekk ñu dégg laaya alquranul karim yi bés bu nekk ñun ñu daal di koy jàng bés bu nekk ñu dégg nit di ko jàng bés bu nekk nit jiite ñu ci di ko jàng waaye du def ci ñun dara bal dañuy génn daal di koy fàtte léeg nga dégg nit kuy dégg alquran sa toog di reetaan kon mbokk yi nañu defaraat suñu xol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng ngeen ay yooni yoon mu woo Abdullah ibn Mas'ud ne ko jàngal alquranul karim ma déglu la kon di dégg alquranul karim dafa am lu mu war a def ci nit ki ñi kon tay ji li mom mo nekkon suñu jotay as-salafu ma al quran nu ngi jéggalu bu baaxa baax ci baat bu suufe bi xawa tawat la yal na yàlla bur bi subhanahu wa taala defal ñu tawfiq te defal len ko mu yàgg no may ñu tok tim téré borom bi subhanahu wa taala di jàngale te tega tomb yi mag ñi nañ lan daan al al-qur'anul karim ما كان من sawabin فمن الرحمن وما كان من خطأ فمن نقصان صلى الإله على النبي وآله ما لبى ملب أو تهلل محرم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته